bu fekkonte ni petit pois lañ doon togg fële ca Santiago yu waxuma la ñor sax waaye xaay sax defu ko match bi nga xam ni gone sol mooy weexi doon nañ ko fa bal yaakaar naa ni ndam amuñu ko ci waaye tamit yaakaar naa ni perte nañ leneen lu raw ndam ndax gis naa ni ci benn côté ci li nga xam ne mooy classement bi loolee danañ ci dikk léegi ci xëtu yaatu Manchester City nag indi doole ju mat sëkk nag fële ca Santiago Bernabéu waaye nag affaire yi jeexagul yi jërul sar xool la jërul dara affaire yi des na mat si retour ci li nga xam ni mooy fële ca stade ba nekk ca Angleterre ñu bari nag jàpp na ni foofee City mën na faa dekk lii la di favori gars yi maa ngi leen di jaar bu baax a baax di leen béggee ñaanal leen jàmm ak salaam leen sutura yàlla sunu borom defal leen ko ñu continuer nag sunu xibaar ñëw nag ci équipe bi nga xam ni mooy Manchester City bu ñu neexee ñu commencé ko ak Bernardo Silva laa jàpp ni nag bala maa ñëw ci kii nga xam ne nag international euh, bii nga xam ni ab footballkat la bu mucc ayib moom di Fede Valverde ngeen gis euh, match bi ak bit bi la boo xam ni wax dëgg yàlla xaañ la boo xam ni euh, da ko am yéene mu nekk li nga xam ne moo nekk bitub égalisateur bi loolee ko def bi lu toll ci juróom-ñaar fukki minutes ak juróom-ñeent foofee nag Real Madrid mënoon na faa rey bi sax ci li ci des waaye nag occasion yoo xam ni kii di Bellingham ak euh, kii di Vinicius def na ko Vinicius nag bu gisee gis na waaye bu fekkee day talaxlaxi day talaxlaxi bàyyi bu ngeen comprendre loolu bu baax a baax ci moom ndax daanaka football yi nga xam ne moom la ñuy gis muy match yu muy def day nekk match yoo xam ne yu desee bu baax a baax la ci li nga xam ne mooy football meilleur moom moomee di Fede Valverde mën nañoo jàpp ni sax boo fekkente ni lépp tolloo na mën naa bokk ci lii di l'homme de match nga xam ne moom lañ tànn baneen côté bi nag ci kaw bala maa ñëwaat foofee ci Real Madrid damay dem ci City Bernardo Silva bit bi mu njëkk coppati ci deuxième minute bi yaakaar naa ni bit boobe am na solo bu baax a baax ci li nga xam ni mooy boobee match tax na nag City ñëwaat bu baax a baax ci première bit bi mu dugal fukki minute ak ñaar tamit gone yi nga xam ne ñooy gone yi euh, anglais yi ñëwaat ci bit contre son camp boo xam ne Robin Dias jàpp naa ne moo ko def euh, ci fukki minute euh, bu ma juumul ak ñaar séngam fukki minute ak ñeent tamit euh, maanaam Euh, Real Madrid ñëw ci Rodrigo mi nga xam ne Vinicius Junior jox na ko ay ginaar yu ñor xomb mu daal di koy cabaxal ci biir camp yi loole tamit nekk maanaam démonstration de force boo xam ne gone yi nañ ko waaye nag Foden nag moo yàq jàng yi tasaare bagage yi bin footballé juróom-benn fukki minute ak juróom-benn ci biir boo xam ne bit la bu ama am solo moom mii nag euh, di ki nga xam ne daanaka mooy Foden ginnaaw loolu am na fa ki nga xam ne daanaka moo nekk ki lay di euh, Gvaradiol ma jéggule ci tur yi sax ndax xam naa ne seen tur dana ñaqalee tudd yëngatu bu baax a baax waaye nag moom moomee ah, daanaka bëriwul li ngeen koy gis ci terrain yi nga xam ne fa la City mu nekk match boo xam ne jàpp naa ne mu nekk match a am ci na ci spectacle xanaa nag yi ndax ñoom ma gisee njàngatu match bi victoire boobu mënu woon a nekk tey jii bari woon na te it yaakaar naa ne bari na yeneen yoo xam sax am na yu ci mën a wax ci li nga xam ne mooy euh, boobee euh, match ci li nga xam ni moom la man Real Madrid doon football am na ci ñu bari ñoo xam ne sax bu ñu amoon carte rouge na nañoo ñàkk li nga xam ne mooy match bii di bu retour bi ñu gis ci waa mi ni moom it tey ji yaakaar naa ni bari na faute yoo xam ne def na ko Carvajal moom it gis nga ko carton zone bi nga xam ne am na ko ci discussion euh, bu mu doon discuter ak li nga xam ne mooy arbitre bi kii di Bernardo Silva moom it am na carton zone kii di Akanji ni am na benn carton zone ci fët boo xam ni euh, def na ko mu nekk lu ama am solo Barham Diaz nag mi nu jàppoon ni mën naa am di ay xéewal ci équipe boobee moom it dugg si na juróom-ñaar fukki minute ak ñaar waaye ba mu dikkee dafa mel ni yaakaar naa petax mu tawte maanaam yogg def xamul fu muy taxaw xamul na ni nekk Toni Kroos loolee daanaka mu am solo bu baax a baax Luka Modric nag ñëw remplacer Rodrygo Goes moom it mi ngi ko def ci juróom-ñaar fukki minutes ak ñaar séngam soos bi nag ñu jàppoon ne day ñëw jaar ci yoon soos bi nag ki mu remplacé moom laa jàppoon ne sax buñ ko fi doon bàyyi mooy tane ak yi talaalaxe muy kii di Vinicius Junior loolee mi ko def bi ñu footballé quatre-vingt-huitième minute euh, waaw juróom benn juróom-ñett fukki minute yu toftal juróom-benn minute loolee la ko génnee waaye Julian Alvarez moom it mi remplacé Foden Foden gis ngeen pharmacie boobu nga xam ne nee nañ ko jaww ci kanam dafa fekk ne moom it daa blessé ba mujj sax daal di génn jeexalul loolee di ndaje mi moom kii di nga xam ne moo nekk Phil euh, Foden ndax moom it gis ngeen ni match boobee lessande la tey taxawaay bi nga xam ne am na ko ci taxawaay am solo match bi des na li mooy match retour bi nga xam ne gën a mere gaynde yi war nañ koo dëgmal mu nekk match bu ñëpp di xaar foofee nga xam ne mooy Angleterre foofee nag dara mënu faa yomb bu waxantee dëgg ndax gone yi bu fekkente ni amulu góorgóorlu amul ceetlu bu baax a baax mën na noo ñàkk li nga xam ne nag mooy seen euh, trophée bu ñu bëgg a jëli maanaam di Ligue des champions boo xam ne fukk ak juróom bi la ñuy wër bu ma juumul bu ma juumee ngeen jubbanti ma loolu du dara waaye nag euh, fi mu toll nii fu baax taxawun ci position boo xam ne position bu mucc ayib la pour mën a euh, lijjanti loolee taf taf ci li nga xam ne mooy bile Ligue des champions yow sax di nar képp di dem ci fi nga xam ne daanaka moo nekk Arsenal ndax Arsenal tamit moom it yaakaar naa football na match boo xam ne bu am solo la résultat yi ak toj bi danañ leen ko andi léegi nii ci xibaar yi bala ñoo jeexal gis nga Real Madrid tamit tey jii mi ngi doon compté lu toll ci juróom ñeen fukki trophée ak juróom-ñaar yoo xam ne am na ko City am lu toll ci séngam ñeent fukki trophée ak benn kon bu fekkente ni wàllu palmarès ci euh, Real ak siti tolloowun fa duñ fa moppandoo nag waaye fi mu toll nii loolu lépp dañ koy évancé teg laneen lu yees ci table ji mooy football meilleur bi nga xam ne commencé na léegi yaakaar naa ni foofee la ñuy commencé euh, bis yu baax yi moom Rodrigo sax yaakaar naa ni euh, ni mu ma xalaate ni jàppe na ko kii di Erling Haaland loolee am na solo ndax kii di Haaland bu fekkente ni maanaam marquage rek def nañ ko ko ndax moom gis naa ni amul benn bit boo xam ne yaakaar naa ni tey jii moom mi di Erling Haaland dugal na ko kon Haaland moomee gaa ñi tëj nañ ko fi mu toll nii ba amatul fu mu dem sax moom lekk loo xam ne daanaka lu baax la ci défense bi waaye nag tëj na kaso ki nga xam ne moo nekk Erling Haaland ñu jóge foofa dem ci Angleterre euh, dem ci Arsenal moom moomu doon recevoir Bayern Munich baaxul ci moom ndax fi mu toll nii Bayern Munich dañoo ñaar ci ak ñaar kon bu ñuy ci Allemagne dañuy commencé waat zéro maanaam di football zéro nag bu ñu ko commencé waatee mën naa mu baax ci li nga xam ne mooy Bayern Munich ndax jàpp naa ne bit à noor bit yi nga xam ne moom lañ daan compté ñaar est-ce que bit yooyu mi ngi am ba tey bu ma juumul bit yooyu bu ñu ko commencé wul war nañ koo commencé sax normalement bit yooyu su ma juumee ngeen jubbante ma sama xarit dina ci commentaire ndax xam naa ne ñun ñëpp ay amateur lañ guddeeg bëccëg ñi ngi ci machine yi di xool wàllu football mais yenn saa yi nag juum mënta ñàkk te xam naa loolu da ngeen nu koy jéggal maanaam bu fekkente ni effacé nañ ko kon bu boobaa Bayern Munich day nekk gundaandaatam rek jàpp njàmburam xool ci li nga xam ne daanaka moo nekk li lee di euh, mbir moomee nga xam ne moo jëm ci match retour bi kon aller bi gis ngeen ko Arsenal yaakaar naa ni fi mu toll nii euh, ñaar ak def ba Bukayo Saka fukki minute ak ñaar euh, moom moo ko jox ay ginaar yu ñor xomb mu daal di koy cabax ca biir camp mu nekk bit boo xam ne nag ko joxaat yoo xam ne dañu koo saaf ba mu dégg jàmm mu def ca lam ca war a def soos ci kaani laal ci mu tàdd ni ko taw ci biir camp yi mu nekk ñaari bit yoo xam ne équipe bu Arsenal dugal na ko su ma demee ci nag ci li nga xam ne mooy Bayern mi ni nag ñabri maanaam Goretzka moom moo ko jox ay ginaar yu ñor xom bu saaf ko ba mu normal mu def ci mayonnaise laal ci petit beurre ak moom kii nag di aari euh, euh, kiin moom it kenn joxu ko ay ginaar waaye ab pelanti la boo xam ne bu mu dóor la mu daal koy dóor ba ànd ak moom ci biir kaay commande nag yaakaar naa ne bañal nañ ko ab bit ci boobee match mu nekk match boo xam ne boo amoon solo la gars yi information yi loolu fi ñëwoon Aladji Malick ci kaddu gi ma sàkku ci yéen abonnement yow mi ko defagul nga def ko léegi ndax abonnement boobee dana tax lu man coppati ngeen mën ko am kooru jàmm gi nga xam ne jeex na bés ni ki tey yàlla sunu borom yàlla na sutural Sénégal sutural samay abonné nag nga xam ne ñoom ñooñee ay jàmbaar lan woon ci koor gi bu baax a baax ndax dañ doon woor normal te it woor wooru gàlle ma doxe foofu ni leen baal leen ma àq baal naa leen yàlla nan yàlla boole jéggal ñu fekkee ay déwéni déwén seenoog ndewenaan nag dana ñëw xam naa yéen it ndewenaan gi dana ñëw ci man bu ko defee maanaam loolay euh, imuuru alaaji Malick ak i fan sam jërë ngeen def ci kanam yeneen information